salam salam sama gay yi ngi leen di nuyu dina jox sen seen way nan sama gay yi liste yi na kon président Ousmane Sonko ñu ngi lay jaajëfal nan ñi ngi am contenté Nabi Vision. liste yi génn na duñu ñu def focus le 17 incha sama gay yi ngeen das carte mais li ma ci gëna am contenté contenté moy mère Amy Dia sunu yaay jooju luñu seen ci liste bi mère Amy Dia la femme battante gis ngeen lu mu daj ci 3 ans yi mère Amy Dia la femme engagée. mère Amitia ñi ngi lay jox sa way ma retourné wat gis may mëna busso may mëna busso lima gëna neex ci affaire am moy patriote yépp dañ ko yéene won pass tay lako yalla dogal kon mëna busso la femme battante la femme guerrière femme bi bëgg Pastef femme bi bëgg projet bi femme bi bëgg changement Sénégal kon mëna busso ca kaw ca kanam buñu taré def focus président Ousmane Sonko di wajal la set ñun paré nañu inshallah gaay commencé len sen porte à porte yi commencé len di wacc sur le terrain di wax ak sénégalais yi sama gaay yi len sen carte d'identité yi daas leen seen pièce d'identité yi incha allah bureau de vote yi sama gaay focus jël 95% yi jox ko président Ousmane Sonko na sunu Sénégal changé sama gaay li lii la dé li jixaat la na ci ben na ci ñëpp bàyyi xel focus la 17 incha allah. salaamaaleykum les patriotes sama gars yi focus bi moom continuer rek nekk leen si man si laa nekk nii gis ngeen ko <laughs> macha allah dinaan kafe voilà liste bi génn na di wax alhamdulillah comme ni ngeen ko yàgg waxee rek président Ousmane Sonko lu mu wax noonu la lu mu bëgg noonu la te moom rek ngeen di topp ñun moom rek la ñuy topp yéen a ko yàgg wax. Naby Vision. liste bi génn na am na ñuy wax si suuf am na ñu kontaan loolu moo allah kulli aal moo àdduna ñoo ànd. Euh, bi leen fàttalee rek wala maa ñëw si message bi mooy Macky Sall euh, dictateur boobu comme jàppul woon sa morom nga xam ne Marème Faye Sall moo doon xeex ak moom saaga ko ndey mu fayu muy sa kamara bàyyi nañu ko ndax ginnaaw bi ñu ko yooxoo dénoncé ko euh, ma ñëw nag si liste bi keroog bi list bi génnee ñëpp dañoo daw dem Facebook ne candidat laan candidat lañ ba ma taxaw wax si ma ne yéen dafa mel dañuy fàtte ñi faatu président Diomaye tas assemblée nationale rek. jàpp datu élection ñëpp dem na ay ay député la ñëpp mënuñoo nekk député foofu mu am ñu dem am ñu ne si leneen état bëri na lu nit mën a liggéeyal état te du doon député du doon sax ay pos te pos yi bëri na li am solo mooy ñu fexe jël assemblée national bi bu soo su boobaa président Diomaye président Ousmane Sonko dootuñu am lay danañ jiite Sénégal ni ñu ko bëggee li ñëpp bokk danañ si jot ni ñu ko doon waxee waaye dafay am lu may fàttali patriote yi gis ngeen photo bii photo bi xam ngeen la woon ñi yàgg topp Pastef Pastef nag dafa am ñetti Pastef dafa am Pastef 2014 am Pastef 2018 euh, am Pastef 2022 wala 2021 catégorie yooyu yëpp nag moo waral coow li bari moo waral buru yu bari mais ku nekk xam nga yaay kan dama ne bi Pastef di fallu ñëpp dañ doon wax ne man ne damay xeex parce que injustice bi dañuy xeex pour jële fi Macky Sall kenn amul woon si yéen ñu si bari si ëpp si yéen amoo leen woon ambition politique way jiite poste bay doon député bi Vision kon nag tey bu si kenn ñaaw la ma leen yàgg wax rek ñi ñi ñu jël ñoo war a dem ñooñu la Sonko gis ne ñoo war a dem te jël na leen ku mu jëlut warul laa jël. am na loo xam ne nag képp koo xam ne yaa ngi koy def nawloo woo ñi faatu nawloo woo leen ñi nga xam ne dañoo blessé ñawloo nawloo woo leen ñi nga xam ne ñu ngi dund ay jafe-jafe si parti bi waaye nawloo woo leen Pastef nawloo woo leen le président Ousmane Sonko mooy nekk fii di mer amul lu ñu war a mer lu dul Sénégal bu baax lan la ñu war a mer mooy ñoom Ousmane Sonko def leneen ñoom président Diomaye leneen loo xam ne muy Euh, lu ñu yaakaarutoon si ñoom te defuñu loolu gis ngeen tànneef gi na si ñëpp ànd ñu def élection yu kenn mësul gis ñu jàppale ñëpp gox bu nekk ña fa nekk ak ñañ fa tànd ñu booloo doon benn jële fi réew mi gis ngeen Macky Sall si boppam mu nga ne day ñëwaat Sénégal pour bañ ñu àtte ko ëllëg pour mu mën a nekk député te ni ma déggee ñu euh, borom xam-xam yi wax dafa soxla ñu jël lépp ñu am lu tolloog 120 euh, député wala 130 député ko loolu laaju détail Tengen ngeen fàttali kenn ku nekk sa démb ne am ambition politique si ñu ëpp si ñun bay toog fii di mer wala ngay am looy wax lañ waxoon ne doon so la mu nekk si ñun na continuer nit ki boo ko jiitalee da nga koy wóolu loolu laa am lu may jàllale mbooleem patriote bu ñu mas a dafa am bàkkaar yoo xam ne nañ ko moytu mooy ñu wor ñi nga xam rek ñàkk nañ seen bakkan parce que ñooñu rek lañ war a xalaat mooy tax ñu mën a focus si liste si suñ kanam kenn ku nekk nag am nga droit am ambition politique si parti ba nga bokk mais ni Pastef démarré woon kenn si ñun ñu ëpp si ñun amul woon ambition politique te li si suñ kanam bari na parce que tamit Sénégal dañoo war a dépenser ay détails dañoo war a won Sénégalais lu bees ba pare tamit li si kanam bari na ay élections yi élections ñu ngi si bari parce que ñu ngi bëgg jiitee jiite Sénégal cinquante ans si kanam moo tax jaru yàkkamti dal leen bu si kenn ñaaw loolu rek laa amoon lu may wax mbooleem patriote

Pastef jël na ñoo xam ne bokkuñu Pastef bokkuñu coalition Diomaye président Pastef aussi jël na ñoo xam ne ci Pastef lañ bokk mas ñu nekk député waaye aussi jël nañu ñoo xam ne ay député lañ woon ñu jëlaat leen dugalaat leen ci liste bi mu nekk liste bu riche boo xamante ne ku ko gis di nga xam ne Pastef vision ak li nga xamante ne mooy taxawaayam dafa am solo waaye dañ ciy sóoraale Sénégal ak sénégalais mu nekk nag ay liste yoo xamante ne. direction générale des élections génn na ko muy liste provisoire képp ko xamantene dañ la recalé am nga deux jours ngir contester loolu yóbbu ko ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel moomu nak amna ñetti fan ngir càmbar li nga xamantene moy dossier yépp su ko defee mu génné liste définitive bi nga xamantene mo wara a dem. ci élection législative 17 novembre 2024. kon patriote yi ni ngeen ko xamé le président Ousmane Sonko moy jité liste bi and ci. ak ñi nga xamante ne ñoom la ci war a àndal kon waaj waaj jot salaamaaleykum patriotes yi bëgg a ñëw indi ay leeral ci list bi ngeen gis ñu koy partagé ñu bari dañu leen a gis ñuy laaj ana honorable député Ayib Daffé ana honorable député Guy Marius Sagna Abass Fall Cheikh Thioro Mbacké Ismaïla ak ñeneen ak ñeneen Ayib Daffé ak ñu mel ni ñoom ñu leen di wax ne ñooñu ñu ngi ci list départementale bi bii mooy list national bi xam ngeen ne élection yi

compatriotes yu ke yu kungel yu Kédougou yu sor yu Matam yu fep dañu am sas bu reuy bo xamantane nabi Naby Vision dañu ko sas te sas bobu dañ ko wara a moy mooy ba liñu am ci ay député muy Dakar muy Mbàkke muy Ziguinchor muy fu mën doon wala Thiès ñu jël ko rafalé lepp te ko kon ñu ngi xaar patrouille yëpp ci liggéey boobu di wax ne Euh, li nga xamantene mom moy mooy national nationale bi 53 euh, personnes la te 53 personnes yooyu buñu amé plus de 2 millions 400 euh, votants ñooñu dañuy jall di wax né listu dépôt yi nga xamné ne ñoo déposé fa ci direction générale des élections 49 lañu won ñu 8 yi bàyyi 41 yi wayé 8 yooyu am nañu droit dem déposé wat défar séni dossier déposé wat ko ci diiru ñaari fan bu conseil constitutionnel aussi chambar ko bu ko chambaré su ko défé joxé résultat définitif yi kon sénégalais yi ak patriotes yi comme nawon fa woon rek li ñu leen président Ousmane Sonko bii yoon yablewul yónneewul moo demal te defe naa mat na ñenti at sénégalais yi patriotes yi di xaar di xaar ki nga xamante moy président Ousmane Sonko ngir gis ko ci liste yi gis bulletin de vote bo xamné photo ma ci waa mbokk yi Ousmane de tànn nañu ba bañ euh, ñun bañ demee ba nu ñëw consensus tànnal nañu donc euh, ku ñuy wax biram Jaxeer euh, Diouf militant première heure ca Touba moom la tànn def ko suppléant kooku day jàll bu soobee yàlla. Naby Vision donc Cheikh Bara Ndiaye mi ngi ci biir liste yi maire Ami Dia mi ngi ci biir liste yi ah Omar Diop waa Daara ñi ngi ci maanaam waa ñëpp ngi ci daal. waaw li ci gën a daw yaram nag ndeysaan mooy ki ñuy wax coordinatrice wu handicapé yi. boole na ko ci liste yi vice vice coordina vice coordinatrice bi donc kon xam nga mbir mi daw na yaram Cheikh Bara Ndiaye kon yow xaaroon nañ la fi incha allahu taala euh, suñu tonton àll kan père àll kan mi ngi ci biir ndeysaan moom ay soixante-dix ans mat na député bi ci gën a ndaw nag yaakaar na amagul sax 30 ans boole nañ ko ci donc yal na yàlla moote li ci des xeex rek sunu wàll nag moom mooy Abdoulaye Ndiaye mooy tête de liste bi mérite na ko donc c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut xeex rek pour fal ko incha allahu taala waa Louga Ousmane Sonko mii nii ah daal ñuy jaaxal nañ ma waaye jërëjëfe président Ousmane Sonko waaye merci waaye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ah lu ñëpp bokk ñëpp séddoo ko de leer na moom aw sekk mi handicapé bi ñu dugal ci affaire bi ci liste député yi ak kañ ji ñoon ne commando la <laughs> ak maire Amidia te loo ci xamul liste bi gis naa ci ancien procureur gis naa ci ancien gis naa ci culturateur gis naa ci euh, ministre gis naa ci euh, avocat waa xam nga ni waa kon léegi yow réew mi dajut gis naa ci commerçant. Naby Vision. su ñu amee lu ñu naqari kooku la ñuy waxal ñun jëndkat ak jaaykat yi xam nga ne ñii buñ leen ne réew mi dana jub dana jubbanteeku. handicapé kañ ngeen ko loolu mosul am oto yi ci réew mi sax bu ñu leen sóoraale sax buñ koy defar sax ñu sóoraale handicapé yi. waxuma laaj di leen sóoraale si kii xam nga ñii lan moo fi daan am bu élection jublu si yaan ñu dajale seen xaalis ne nañ jëm di xool handicapé yi ak puuni yi di leen ko sarax loolu kese sarax bu ñu leen digal loolu rek lañ leen daan digal léegi nag handicapé yi dañuy toog foofa di kaasal seen bopp di kaasal ñeneen ñi xam nga ne lii nii ku narul njub doo ko def ku narta dimbalee ñi ñàkk wala ñu ñi amul wala ñu mënul dara doo def lii ay liste bi diis na ay liste bi <laughs> ma ne président Ousmane Sonko li ma gën a neex ci moom mooy bi gars yi di euh, di di di di jàng laxaar laxas ak ak jubadi ak dëng boobu moom mu ngi jàng ak njum moom mu ngi jàng ak ndëggu mu ngi jàng ak baax am man de lii jaaxal na ma man ah waay waay liste bi rëy na liste bi diis na de ay waay wax leen ci lii waay léegi nag koo xam ni amoon nga ñeewantal ci ñi ma la fi tudd ni ñëpp demal wateel Pastef Naby Vision lu ne kenn lu lu ñëpp bokk ku ne jot ci wàllam loolu mooy lii te wane na ko ci li bi rek ci la ko wane ba te kii bu du kii laay man président man ñii jaaxal nañ ma ñaari ñi ñaari guni yii ñaari guni yi de barke Cheikhou Tidiane bu doon bu doon kii bu doon équipe la nga boole leen ci benn équipe coupe yi ci àdduna bi yëpp danañ ko dajale indi ko senegal lii maa la ko wax barke Cheikhou Tidiane ñi politique de ñi dañuy liggéey <laughs> waaye doxal ngay politique doxal ngay politique ñii politique uñ de te yaa ko tey yow Ousmane Sonko yaa ko tey xam nga ne yaa ko tey de <laughs> téléphone baa ngay daan yaa ko tey xamoon nga ne bi nga nekkulee président nekkulee premier ministre lañ la may jàmm waxuma laa bi nga nekkee euh, premier ministre yow xam nga ne gars yi duñ la may jàmm de yaa ko tey yaa ko tey yaa leen bëggoon yow yow yow yow bi fi nekkulee yaa daan nguur gi lool bëggaan loolu lool ñuy def boo xëyee wax ci yow la ñuy yendu ci la ñuy góor yow bi nga nekkee opposition gannaaw lañ la may jàmm waxuma laa bi nga xamee ne dem nga ba nga xam ne yow <laughs> tey yow xam nga ne gars yi duñ may jàmm waaye nag yàlla bi yàlla dogalee ne ñoom duñ mayee jàmm waaye nit lu mu la mënta xëy mënu la ko may nit lu mu la mënta xañ mënul la koy may jàmm nag moom kenn rek koy maye yàlla ta yow moom nga yaakaar ta moo la koy may waaye ñi ne ñi ñi nga jàkkaarloo mosuñ laa yéene jàmm loolu moom war nga ko xam moom <laughs> dalee ñaan tey ñaanloo. Naby Vision. barke ñaan tey ñaan mën na lu ne balaa ngaa gane àdduna ñu lay ñaanal nga judd ñu lay ñaanal nga màgg ñu lay ñaanal nga jóge fi génn àdduna ñu lay ñaanal nga dem yowmal xiyaam ñu lay yóbbante ay ñaan boo xeebee ñaan a xamoo sa bopp ñaan ak football yam dëkkut ala alaaji bu touré ko sa daru wan sa rafat sa xeer wa ke Seexu tigan affaire bi mu ngi doga neex nak dogal dégg na président bu ñak fayda bi da ron xeer démb dégg na ci avion ba <laughs> jabar ji dégg na <laughs> ay te dégg na itam ñu ne mëna day ñëw mëna ko ñëwal bok ci liste yow mëna ñëw rek yow ñëw rek barke Seexu Tijaan dégg na dak nañ ko gaay di rafetal na dafa dafa dafa démission démissionné wul de président France boobu mo xam li xew xam na li ñu wax yépp ne deug la parce que FMI wax nañ lu mel ni midi su ko defee rek mëna ko gawal ñom ñaar comme déggo nañ mëna ko uh, uh, démissionnaire rek démissionnaire sa waji ji té te dégg na neen day ñëw ñëwal yow mo bo ñëwé campagne ci réew mi ma xamni réew mi amul yoon barkeb Cheikhou Tidiane nabi Vision bo fi ñëwé campagne ma xamni réew mi amul amul yoon la la wax Cheikhou Tidiane yow ñëw rek bismillah rek réew mi dana jubto dana jubanté ko ñaari gune yi ah ñaari bu wax naa leen ndëraan ensemble lañ ku toog taj ku jaar seen kanam ñu euh, nappaaje la jàll. man de liste bi diis gi mu diis c'est très lourd les listes Pastef pour les pour euh, kii pour euh, député ah non c'est très lourd.